ay Boy Niang euh, wax dëgg si yàlla làmb ji neex amateur yëpp kontaan nañ mhm. Modou Lo def na la mu war a def dëgg la Boy Niang def la war a def mhm. euh, ñu ngi santaat yàlla baax a baax dëgg la dëgg la macha allah làmb démb ku ko gis Euh, wax dëgg si yàlla xam na Gaston production liggéey na bu baax. waaw ah, waaw c'est ça c'est ça c'est ça. voilà ñu ngi allah macha am na solo yéen yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax seen taxawaay ci làmb ji. merci beaucoup merci beaucoup. loolu nag mooy ñaan nekkoon nag fukkaat daalee dëgg la dëgg la dëgg la. Euh, man démb man maa ngi dëkk fii ba Saloum. Saloum tur bi naka la. waaw dama dëkk góor yàlla yoo xamante ni. ñun dañuy waxante ci làmb. dëgg la. ñu am xam-xam ñu musul génn ci télé ñu musul génn ci ci ci réseaux sociaux yi naa la xamal benn mbir nga xam ko tey. waaw waaw. barke Seydina Muhammad ku dégg sa bàmmeel. sallallahu alayhi wa sallam rawal. Modou Lo gis nga ñu koy ñaanal. Mhm. wallahi xas yi mu génnoon sax ci télé. ñi mhm. ko topp ñii. Mhm. nekkul ne ñoom ñoo koy ñaanal. dëgg la. barke Seydina Muhammad wallahi xas yi. rawal rawal rawal. billahi dama toog a góor gu mag démb. boo ñaam dernière minute dernier moment yi. Mhm. moom moom moom dëgg la. làmb ji làmbam la woon. dëgg la. ñi nga dippar ci ñi dippar ci combat bi ñi nga pikin ñi nga biir pikin toog. wallaahi alhamdulilah ñi ngi bi làmb nga biir pikin toog. billaahi wallaahi taala. xoolal loolu ñu làmb waaw. ñi nga tëdd biir toog. est-ce amu sax moom lu ko daan. wallahi mo daran ko dan ta bu joge dana laajte lan moko wat lan moko dan daan dafa dan ta effectivement nam ko waxe non la te non la amé man mang koy gis ñu ak papa ji ndaysan wa day la ci mom mom mot lamb ji lamb ji door mu dan lo wa parce que parce que man dama gis ni ñuma deg ñep dañ ni boy mo moo ba heure bi boy mo moo man kay nee naa la man góor yi ma góor yàlla yi ma fi aha barki alquran karim dañu waxantu deug la wallahi alazim mhm. bi bigit waaw la fa nekk baaxul. ah lii dana war. yéenewul kenn jàmm. yéenewul kenn jàmm barke Seydina Muhammad. mais loolu loolu may waral maanaam loolu noonu tamit aussi est-ce que ñoom jot ñu toog seen biir waxtaan parce que lii tamit bu bu bu commencé di demee nii chaque jour chaque jour chaque jour am kuy bëre sa bon di bëre nga bëgg ko fexe di ko teg ay coono tamit loolu tamit baaxul. barke alquran karim wallahi lazim dañuy lekkante seen biir. dëgg la dëgg la. billahi wallahi taala def nañ li ñu war ñi am boo ñaax dëgg la. joxoon nañ ko lu wér keng. dëgg la. lu wér la teewoon. ndeysaan. waa Pique ñoo waroon di feeti victoire bi. dëgg la. démb nag bu mu gisee am naa sëriñ ñu toog mu loo di xaaj kan te kii man daay ree daf maa ah waaw dëgg la dëgg la dëgg la macha allah macha allah kilifa gi. ab sax mënuñu koo def ci booy ñaa waxum laa nag. si leneen. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. ah làmb neex na. Materi yëpp bëgg nañ mais Pikine daal maa ngi leen di ñaax benn affaire bu fekkee ñu ngi diggu sama sama sama waxtaan bi. dañ def furaat ñoom ñu nee na ñoom ñoo xeexante seen biir. waaw c'est vrai. waaw làmb booy nah, ñaala woon moom moom moo ndam li. waaw mais mhm. nag di ko na defarwaat. dëgg la dëgg la macha allah. defarwaat kàjji kaji yi. ñoom tamit xaw na ci bu baax a baax. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. xam nga rek yàlla moom. mooy voilà. mais waa Pikine nañ nañ gën a xippaat seen ñu xool ñu waxtaan seen biir Boy Niang daan na ba pare mu waaru di laajte lan moo ko daan. lan moo ko daan dëgg la. élanci. dëgg la dëgg la. santaat yàlla bu baax. macha allah macha allah am solo am solo. barki alquran karim mu loo ben benn sëriñ mu loo bu daan Boy Niang amul. mënuñ koo jàpp ci dara. Mhm. pikin ñoo ko daan. dëgg la. dara bu di për ci làmb ji ñoo ko def. est wallahi alhasim. dëgg la dëgg la sëñ bi. macha allah macha allah. am na solo am na solo jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax sëñ bi di wax ni ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal émission bi am na solo tey ji ñu ngi lay wax ni ñu ngi lay ñu ngi lay déglu al direct si biir Saint-Louis TV xam naa Pikine moom bu la dégloo daanu daanu bàyyi xel si li ngay wax incha rabbi ah, wallaay la si wér ala ak yeneen yeneen yoo mhm, dëgg la dëgg si bi kontaan nañ si yow <laughs> kontaan nañ si yow tur bi tur bi Muhammad Lo masya allah Mohamed Lo ah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yaa ngi en direct ci seen activité waa allah. allah merci beaucoup Mohamed Lo merci beaucoup. ñu dok jam, insha allah Wa mi ngi noonu dégg nga mu wax Lo mi wote ba Saloum euh, di wax si si euh, li nga xamante moy mooy combat démb bi muy diggante Modou Lo ak ki nga xamante ne dégg mu wax ah, Lo euh, amul benn amul benn.